بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين mbokki تلسبكتاتر Lac تي في ñu ngi زياره di balu baalu xaq di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi ci weer tedd wi incha allahu tey ñu ngi fii kër El Hadj Ahmed Baro Ndiéguène ci Thiès jàkkaarloog sunu sëriñ sunu ustaaz sëy Seydi Babacar Ndiéguène ñëpp xamee ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy une fierté yàlla def Sénégal amul fu mu dul dem ñuy tànt tàntal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tok fa di baxé mbokk julliti sur les enseignements du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tay nak on a eu l'honneur et le grand plaisir tok ak mom fas ko euh, talal sunu micro pour mbokk téléspectateur Lac Rose TV jariño ci xam-xam bi nga xamni ma sha allah mom la ko sunu borom jaglel mu koy jëriñal askan wi di leen waxtaana di leen bégal di di yokk seen cofeel ci seydina muhammad salallahu alayhi wa li tax ñi ñëw kër maam alaaji nag dañoo nekk ci euh, période bu xam ni ñëpp xam nañ ni jullit yëpp a ngi ndokkalante jullit yëpp a ngi bëggante ndax weer wu màgg bi ñu nekk muy weeru seydina muhammad salallahu alayhi wa fii ñu ñëw nag muy kër alaaji muhammad njigéen bokk ci péncum yàlla yi muy péncu moo xam ni mag moom am cër ci sunu borom moo ko samp daan fi taxawal burdu daan fi taxawal gàmmu euh, ñu fas yéene ñëw te na waxtaan ak sëñ Babacar Ndiéguène ci burdu kër maam El Hadj Mouhamed mu wax ñu tuuti ci cosaan bi ak nan lañuy taxawlee taxawalee burdu kër El Hadj Mouhamed Sakhir Ndiéguène bisimilah sëriñ bi. aawuzu billahi assamil alim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ذاكر ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا مبكي جلدي مبكي أردنا مبكي mbokki mbokki waa diaspora ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan nangu jaamu yàlla lii ñu fas yéene waxtaan ak yéen ah, feggoog suñu doomu baay di suñu frère Haji Samba di ñaan ci yàlla yàlla ñu yàlla jàppale ñu duggee ci bisimilah gën a di nuyu bu baax it tabaarakallaahu tey ñi nga àndal ñëw fi def déplacement bu rëy ci région jóge ci région ñëw macha allah muy Lac Rose TV ñëpp xam ne Lac Rose TV tabaarakallaahu gox la ci gox yi yi nga xamante ni site la yu siiw ci àdduna ndax li ca yàlla bind ndax création bi ko yàlla bind ndax ku dégg lakk ba pare rek Rose xam ne ci àdduna bi benn la ci Afrique waaye benn la ci Sénégal rawatina ci Dakar fa mu ne kon bu ñu fi ñëwee incha allah war a waxtaane kenn ci ki nga xamante ni moom la yàlla kenn kennal ci boppam muy sayyidina muhammad salallahu alayhi wa kon bu ko defee rek incha allahu taala ah fas yéene ñëw waxtaan ak yéen ngir jublu ci bis bi ci kàttanu yàlla barke yonent bi bismillahi monsieur Sène waaw euh, euh, euh, imaam sëriñ Babacar Ndiéguène ñu dikkaat ci question bi di la laaj ki nga xam ni moom mooy El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène pour ñi nga xam ne téléspectateurs yi xam ne jotuñoo xam nitu yàlla bu mag boobu nga dikkal ñu tuuti ci kan mooy El Hadj Mouhamed El Hadj waaw fa tabaarakallaahu dañ ne El Hadj boro Baro Ndiéguène kan mooy El Hadj boro Baro Ndiéguène d'abord moom fon la jóge El Hadj boro Baro moo jóge ca Saalum Saalum boo ko déggee muy dëkku ginnaaw fi nga xamante ni moom la ñuy wax kawlax ginnaaw Kaolack am na bërëb bu ñuy wax Kaffrine dafa bokk ci kawlax waaye foofu dëkk ba nga xamante ni fa la juddoo mooy dëkk bi nga xamante ni boo nekkee Kaffrine ak digganteeg dëkk ba mu dëkk ñu naan ko Kasaas tabaarakallaahu tey sax léegi ñu ngi ko tuddee beneen tur ñu naan ko Aynu Maadi tabaarakallaahu digganteeg foofu fukki kilomètre la ak benn foofu nag la yàlla def kii di alaaji Ahmad Boru Njëgéen jóge fa fa la juddoo ba mu fa juddoo fa la yaroo yàlla def nag mu bokk ci famille boo xamante ni famille buur la woon ndax bu njëkk ba ñaare mën a am nga bokk ci famille buur wala sax doo bokk ci famille buur yàlla def mu bokk ca waaye bu ko yàlla dogalee mu doon boroom xam-xam ndax it ay wéy juróom ñu baax la ñu woon kooku alaaji Ahmad Boro kon dëkk boobu la jóge muy kasaas yàlla def nag mu ne fa bi mu fa nekkee xëy suba am beneen nit yàlla boo xam ne Euh, moom la ñuy faral di wax ni le dénominateur commun ci Sénégal wala le donateur commun muy Cheikh Omar Foutiou Tall nga xamante ni tey jii réewum Sénégal bu dee sëriñ si à 100 pour cent la ak vingt à 99 virgule 99 kenn ku ci nekk am naa ak relation ñëw na wax na la ñëw na jox na la yàlla dafa def nag mu ñëw jox suñu maam alaaji Ahmad Boru Njegen bu mu ñëwee. taseeg moom ca dëkk bu ñu naan kasaas tabaarakallaahu mu jox ko li mu ko jox li mu ko jox nag ah tabaarakallaahu moom la bari ni mu jox ci réew mi muy li nga xamante ni mooy salaatul faatiha waaw mooy mooy werdu tarixa Cheikh Ahmada Tidiane nga xamante ni kon ñun ñoo ngi jëlee ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Umar Fuutiw Taal moom mi nga xamante ni moo ñu ko jox bi mu ko jëlee nag tabaarakallaahu jox ko ko mais bi mu ko jox nag mu yéeme ndax damay faral ni wax ni tarixa bi daa am ñetti pàcc Cheikh Mara Tidiane wax na ko waaw ci ifaadatu ahmadiya nee na booy joxe daa am ko xam da nga koy jox rek mu werd du joxe am na koo xamante ne da koy jox dina werd mais di nga ko jox mbóoti mu ciy def waaye du joxe werd am na koo xam ne nag dañ koy jox muy joxe ba pare jox ko mbóot yi mu war koo jox moom la ko Cheikh Umar Fuutiw joxoon ki nga xamante ni mooy alaaji Ahmad Baro Ndiéguène te pourtant moom taxul sax mu indi woon ko ndax bàyyam moo ko taxoon a jóg muy Médoune waaye nag moom la tombale sens ba mu ñëw jox ko la ma koy jox ne ko ah ginnaaw sa baay na fi danaa ko jël jox la ko ba pare nga jox leen ko famille Ndiéguène foofu la ñu jëlee wérdi bi tabaarakallaahu léegi nag alaaji Ahmad Baro bu mu jógee foofu ne fa ba yàlla xëy suba rek def ci leer ci moom ndax am na loo xamante ni damay faral di wax ni wax di yëg ak yëg di wax bokkul yër di wax ak yëg di wax bokkul gis nga ko yooyu yëpp ci yëg-yëg la moo tax boo yëgee di wax mooy gën a foor ki yër di wax moo tax ñu bari tey jii bu ñuy weddi mag ñi rek dañuy yër rek yem ci téere yi mais bu ñu boole woon tuuti yëg-yëg muy baatin ak tasawuf du ñu weddi mag ñi tabaarakallaahu moom mu am yëg-yëg am ci ndigal dem dem nag dëkk bu ñu naan tëngeej fekki fa nijaayam moo tax nit booy dem da ngay am kilifa tabaarakallaa mu fekk fa nijaayam te xam nañ ni nijaay ci wolof du nijaay mais niyaay la niyaay tabaarakallaa mu dem fekk ko xam ne ay waajuram la fekki woon rawatina ndeyam ndax ndeyam bu bu góor la muy nijaayam mu fekk ko tëngéej tabaarakallaahu nekk fa ak moom ba nijaayam nekkoon nit koo xam ne nitu yàlla la woon ndax dañuy faral di wax ni boo baaxee say njaboot day baax say jarbaat day baax moo tax baax rek am solo laa jox ma borom bi mu ko fekk jee moom it mu war a dem màkka makka moo tax am ñaan go xamante dañ koy faral di ñaan boko ñaané da ngay dem da ngay dess makka defa waaw tabarakallah da ngay dess makka mom mu ne ma ngi dem waye ibu ma makka dama fay des bam fa déssé tabarakallah ah yalla def tabarakallah lay xew-xew mu dess waye na mu bolé ko sutu yonent bi ndax sutu yonent bi ñomit bokkon na ci ñi nga xamante da daan daanañu bañ ndax ci tubab da am sédentaire ak nomade da am ñoo xam dañuy wër ña daan wër nag tabaarakallaahu yàlla dogal ci sëtu yenent bi ñu naan ko Chérif Sidi Ahmed tabaarakallaahu ci Tëngéej léegi sax fa lañ ko denc bërëb la bu doy waar loo xamante ni ku fa dem ñaan fa sa soxla yàlla faj ko waaw macha allah temps yi ma xamante ni nekkoon naa mbuur nekk ca daara ja mus na jóge foofu am yëg-yëg bi rek dem ci moom ñaan bi ma ñaanee ba pare ma ne ko bu fekkente ni li nga li yàlla def dëgg la ci yow naa delluwaat mbuur te bu may dellu bu ma paas bu may dellu it naa am oto bu ma yóbbu ba ca daara ca te bu ma fay dërëm ci ci baatinam ci laa xamee ne foofu lu fa ay ñaan nag mu nangu te ba may tukki noonu laa delluwaat te ba may dellu ay trois heures matin la oto ñëw jël ma yóbbu ma ca Sërif Sidi Ahmed tabaarakallaa ma dellu ca daara ca waral loolu day wane ni mbokk yi rek pour jàngal ku bëgg aajo faju foofu war nga fa mën a dox ndànk dem ñaan fa mais secrètement doo fa demee ci mbooloo mais secret nga fay demee ci kàttanu yàlla léegi kooku moo xëy suba ne ko am nañu ndigal yàlla jox na ndigal yow alaaji ahmad boro nga dem ci dëkk bu ñaan jànqeen jànqeen tur bu njëkk ba la waaye léegi moo ngi tudd Thiès benn dëkk ñaari gaar ne ko demal foofu nag parce que foofu li ci ëppoon ay séeréer ñoo fa ne woon te séeréer yi dañoo amoon xam-xam rawatina nag ba pare nag tuubu ñu woon ndax boobu jamono jooju dafa yàggoon tabaarakallaahu léegi nag mu ñëw fi ci ndigal bi mu fi ñëwee nag yàlla def nag mu indaale màggal guddug yonent bi mu indaale màggal guddug yonent bi bi mu ko indaalee nag tabaarakallaahu daan ko feete waaye feete bi mu daan feete nag tabaarakallaahu ah daa am méthode bu mu doon def ci la yàlla defee nag mu am fukki doom yu baax tabaarakallaahu ñu juddoo fi yaroo fi bokk na ci ki naan alaaji Mouhamed Ndiéguène Cheikh Ablaye njegeen bokk na ci Serigne Sidi Ndiéguène Serigne Ousseynou Ndiéguène bokk na Serigne Hassan Ndiéguène bokk na ci Serigne Abdoul Aziz Ndiéguène bokk na ci Serigne Abdoul Wahab Ndiéguène bokk na ci Serigne Abdoulahi Ndiéguène bokk na ci tabaarakallaahu ñooñu ñëpp Serigne Muniru Ndiéguène ba fukki doom yi mat Serigne Ousmane Ndiéguène ba mu mat ñu tabaarakallaahu ñoo ñëw taxaw taxawaay bu am solo ngir ne ci léegi nag màggal gi nan la daan màggalee guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ni kooku mooy alaaji ahmad boro dund cent onze ans bi mu dundee cent onze ans tabaarakallaahu ñu yebal ko Thiès ngir mu ñëw nag màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee tabaarakallaahu ñu delloo la kàddu gi nga amaat looy laaj ñu doog a jëmlu ci bis bi ak nan la dun màggalee guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jërëjëf euh, Seydi Aboubacar Ndiéguène defe naa ni ni nga ko indee leer na bala ñuy dugg ci biir sujet bi euh, indil nga ñu historique famille Ndiéguène ki nga xam ni moom moo ko samp di El Hadj Baro fa mu jugee ca Kasaas ba ni mu amee ndigal bu jugee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngir mu ñëw samp lislaam fii ci jànkeen fii ci Thiès ba tey yàlla def mu taxawal fi gàmm ba gàmm gi ren nekk ci 133e édition. Euh, fidèle du jóge fu ne ci àdduna bi taalibe yi di jóge fu ne ci àdduna bi di ñëw di ndi tibb ci leeru seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc euh, en tant que gàmmkat tey ku ko fekk si ci weeru seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ni am na message bu muy joxe ci yenent bi bi nga xam ne moom lañu sunu borom joxoñ mu nekk sunu sunu royukaay kon sëñ bi lan nga ñuy baaxee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne nag li nag li li duuf ci nag bi du xaj ci cin li waaye nga defal ñu benn résumé rek ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir nit ñi mën a am lu ñu roy wala am lu ñu lu ñu mën a euh, cofeel gu ñu mën a beesalaat wala seen pas-pas ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw fa tabaarakallaahu euh, li nga wax lu am solo la maanaam yonent bi waaw l'extraordinaire ni ko imaam As di waxee. manam yonent bi dafa dafa hors père la sànq rek yaa ngi làkki a, mu neex lol waaw ndax benn waaye euh, poser na ma question ndax perfection amna ci aduna ma ne euh, la perfection n'est pas de ce monde waye nak amna ko xamanteni parmi les perfections ken melul ni mom comme le philosophe euh, le philosophe allemand Goethe disait j'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait et je l'ai trouvé dans le monde arabe ki sunu muhammadu rasulillah waaw kon nag am na koo xam ni yàlla baaxal na ko mu mat doon li mu doon kon mooy Seydina Muhammad léegi nag ginnaaw yàlla dafa def këru diine yëpp dañ koy màggal te it te nous sommes reconnaissants parce que it loolu ñëpp la war ndax yonent bi moom c'est pour tout le monde ñëpp a koy màggal këru diine yëpp kër Serigne Touba Ahmadul Khadim noonte sax dañuy màggal cantu Serigne bi ci safar gi. terewul ñoom dañuy màggal guddi yonent bi kër diine yi tabaarakallaahu ñëpp gën nañ koo xamee mu gënee siw kër Seydi Hadji Malick ci ci yonent bi mais ñoom njëkkewuñu ko fi pour ma xamal la ndax suñu maam alaaji Ahmad Boro euh, alaaji Ahmad Boro magee woon na alaaji Malick 30 ans magee woon na ko 30 ans te boobu ba léegi kooku bi mu jugee Tëngéej ba ni mu fi nekkee moo ngi doon màggal yonent bi mais nag day am loo xamante ni toujours day jaar yàlla def mu am ci ku mu gën a siwee ndax loolu mënul ñàkk yàlla mooy def noonu ay mbiram bari na lu ñuy wax ñun gàmmkat yi tabaarakallaahu di bàyyi ko ci ci gaa yu baax yi ku mënti doon mais am na kàddu yoo xamante ni sax ñun mën nañ koo njëkke mais ki ñu gën a siw wala nekk ci tele bi moom moo koy wax nga ne moom moo ko wax fekk yow nii ñun ñoo ko ko sax njëkk a wax am na ñoo xamante den saa yi ñu dem benn bërëb jël la mu wax moom mi siw te eggu fa ñun ñu wax ko fekk ci boppam moom moo ko njëkk wax waaye ñun lañ ko xamee ndax dégg nga wax ci bu baax waaw loolu mooy maandu ci yiw ci teraanga waaw kon nag kenn ku ci nekk ci dëkku kër dëkk euh, diine yëpp macha allahu ñaseen yeeg tabaarakallaahu cene ba piir pir siise ñoom ñëpp dañ koy màggal waaye léegi nag ñun nan lañ koy màggale ñun ni ñu koy màggaleeg ñeneen yi benn la waaye laa méthode bokkul ndax ñun fukki fan yi fukki fan yi nga xamante ni dañ koy màggal tabaarakallaahu d'abord alaaji ahmad bori njegéen xam nu mu ko daan màggalee moom Fi dëkku daara la woon boo xamante ne alxuraan rek lañ fi daan jàng bu ñu fi jàng alxuraan ñi mokkal guddi yonent bi ñu taxaw di jàng Al ñi mokkalul taal matt yi ba mu tàng bu ñu paree leeraay gi ñu jël ci téy seen alxuraan di jàng ba fajar waaye nag léegi jamono ñëw comme li nga waxoon Ah, de modernisation day am ndax àllin waxoon na ni bu àdduna ñëwee da ngeen di ànd ak moom ndax ëllëg ci biir wa dëhru fii taxayaru wa taxallabu àdduna bu wëlbati ko ànd leen ak moom ndax jamono noonu lay mel ci biir nag tabaarakallaahu alaaji Mouhamed Ndiéguène nekk fekki rakam am na ku baax koo xamante ni jàngi woon na ñëw am expérience moo tax génn dafa am solo mooy imaam Asbourou Ndiéguène ñëw ànd ak i ay grand frère am c'est Ahmed Cissé ànd ak Serigne euh, Mounirou Ousmane Anda ak njaboot gi yep ci gàttal Serigne malik Ndiéguène ñew ci alaaj mu Ndiéguène ne ko ah buñu sañon dañuy burdu legi fukki fani mu ne ko nan ngeen koy defé mu ne ko dede dañ koy doli way duñ ko wañi waye legi buñ koy def ñun dañuy jël fukki borom xam-xam yu nekk ci kër gi yo xamante am nañu performance pour nit ñi mëna wax ñu dekk ñu jël leen kenn ku ci nekk ñu jox la benn tem muy jikko jikko jikko yi motax li nga poser fi lay pour répondre jikko yi nga xamante jikko lañuy jël yi yàqu société bi am en faillite yi am ñu jël ci jikko yooyu benn bu ci nekk fukki fan ñu jël ko waxtaane ko ci Seydina Mohamed noonu lañ ko defee fukki fan yi ba mu mat bu ñu paree ci onzième jour bi noppalu douzième jour bi nag taalibe yi bàyyi ko fu ne nii daal lañ ko defee tabaarakallaahu noo ngi ko defee nag ci benn burdu bu ñu naan baanat soaadu faqal bi Kaab ibnu Zuhayr moo ko bindoon dafa daan ŋàññ yonent bi ŋàññ gi mu ko doon ŋàññ waaye dafa dem ba ci biir tabaarakallaahu yëg ni si yonent bi saa selam ne def na ko mise à prix boppam mu xëy suba ñëw ci yonent bi toog kaalawu nag naar di kaalawoo ba doo ko xàmmee comme un ninja ñëw ci moom waxtaan ak moom na ko bu bu doon kaab moo ñëw jéggalu ndax danga ko jéggal mu ne ko boo bu dee moom la moo toog fii jéggalu ma jéggal ko kaab génne kaala gi na ko mën a mu ne ko jéggal naa la bis tey nee na xolam sedd mu yëg ni kat nit ku baax yërmande yàlla wàcc na ci moom ndax wama arsalna ila rahmatan lil alamin muy seydina muhammad wàcc ci moom mu xam ni xol bi sedd na mu jël ko tagg ko bi mu ko taggee nag tagg yooyu mu ko taggoon ne inna rasula la nuurun yustadaa u bii muhannadun mi suy fi laa i maslulu mu jël ko nag tabarakallahu ñu koy burde fukki fani mom Fi, burde fi burdee fii ahmad boro jegen ci ndigal alaaji mohammed jegen ci ci ay domam yu bax ya tabarakallahu ñoo dajaloo ak sit alaaji ahmad boro waxtaan ak mom ñu def ko ni la nak kan moy sidina mohammed moy ku bax ki moy ku yiw ki ku bëgg bax ku bëgg mucc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaa la wax lu garaaw gis nga bi yonent bi daan dund yaa ngi dégg boo ci téere bu ñu naan kubra bi yonent bi daan dund day jékki-jékki rek wo saxaaba yi ñëw leen ñu ñëw mu yëkkati teraanga joxe ba gaa ñëpp lekk ba pare mu defal leen surprise waaye yonent bi lan moo nga def tey mu ne ko tey la sama juddu man yonent bi waaw euh, su juddu baax sa dee nag moo baaxul te loolu mënoo def dañ la koy defal waaye nag feete ko ci lu baax it sa dee baax na waaw mais nag am na ñoo xam ne 11 mais dañ koy def ku génn àdduna la la mu doon def du yiw kon baaxu kon jeunesse bi li leen di jàngal mooy kuy feete feetal sa anniversaire mais nag feete rek ci yiw rawatina booy jullit waaw surtout la jeunesse la jeunesse dans un pays c'est c'est l'avenir sëriñ bi waaw xale xale day xam fi muy teg tànkam léegi nag yàlla daa am lu mu wax yonent bi ne ko. li ma bëgg mooy lépp looy def bul génn cadre man yàlla moo tax lépp looy màggal ba ci guddi yonent bi mais waroo sax génn cadre yonent bi waaw ci lan taazimuhu na di yaquduna lil jannati sëriñ Tuubaa ko wax yaa ngi dégg alaaji maali wax ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan dégg nga de waaye nag suñu maam alaaji ahmad boro ne wax lisul amaala fa innakum alaya muhaasabun kon guddi gi yonent bi danga koy màggal mais màggal ko ci anam boo xamante ni na mel ni repéeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo am solo kooku mooy yonent bi yonent bi nag juddoom dafa baax màggam dafa baax génn àddam sax tabaarakallaahu li muy métti métti yépp dafa baax ndax dañ ko posé question ndax yow yonent bi ndax bëgg ngaa génn àdduna ndax wala déet waaye mu ne ne ginnaaw xadijatu dem na Hamza dem na kon man dem rek a ma war gis nga ko kon nit ki fay gore ci lepp amna lo xamanteni boko gisé rek yow war nga nangul jambi, war nga am reconnaissance ci mom Nabil mustafa la liñ ci mëna wax man fi may jëlé mbind pour nit ñi mën ci jang moy xolam bonté ak lan oef ak lan ba paré nak nek un guide exemplaire un guide e-, exemplaire mais yow ki ngay top mais da wara doon ko xamanteni exemplaire la wara doon ah yow buñu démé ba ba ko xamanteni dang koy top ci bopam ibnu asir sax nee na ki ngay topp boo gisul ci moom yàlla ba ko ba ko waaw mais lu tax jeunesse bi ku ñu jot topp ah koo xam ne waxul la yàlla yow xam nga ni sax yow li nga nekkee moo la ko gën a bëgg li nga nekkee moo ko gën a bëgg bu dee lu neex moo la ko gën a bëgg bu dee na ma yàlla baal soxna yi moo ko gën a bëgg bu dee lu nooy moo la ko gën a bëgg moom jaamu yàlla sax yow taalibe bi xam nga ne yow yaa ko gën a taxaw mais pour lan doomu aadama day xam njariñam ñu ne ci àdduna bi nag léegi Sénégal gi dafa yàqu àdduna dafa yàqu kilifa bu ne ku jug Sénégal nag la la mag ñi daan wax rek moom suuf la boo xamante ni dafa neex a ji lu fi waaye def daa mel ni daa am engrais loo ji rek mu dem tabaarakallaahu xam nañ ni li ñu nekkee am na ñoo xam ne xam nañ li nekkee du yoon ndax da ngay woote ci guddi yonent bi ay salaam ah mais nga woo ñëpp toog yow jigéen ñi ah greffage yi wadd ba ci suuf yaa ma dégg ah nga ñew waxuma la sax mais la ngay sol d'abord sax du étiquette fofu ci bërëb ba te amna lo xamanteni nak ni du yoon waaw te nak ci biir l'islam la jëm nit ñi tay da ngay ñew ci bërëb bo xamanteni ni mais suñu mbokk xaadir yi d'accord na d'accord na tabalay dagat na ñu tegg ko mais ak teggin wa mais buñu démé ba tegg ba bëgg bëgg yamak ña nekk ci biir euh, dansina na ak sa bistro ba mais baxul nañ waxante deug am na noo xam ne moom lañ ko tëggee lislaam daa wax ne booy tëgg amal nooy tëgg tëgg mais bu yemee ba ñu kay sabar wala sax ñay sabar ñooy tëggee nañuy tëggee ca biir tëggin ba ca biir mais loolu loolu lislaam nangu ko ñoom sax nee nañ taxaw nañu ne gaa ñi ni ñuy tëggee baaxul am na benn waykat bu baax tabaarakallaahu faadal lañ koy wax mais moom boo commencé tëgg yenn yi tëgg yi boo koy tëggee mu ne ni nga koy tëggee baaxul yow mit ñëwit boo ñëwee di jaayu mais am na nu ñu wax nga jaayoo ko mais yow da ngay ñëw jaay boo xamante ni yow day mel ne ku ne ci sabar da ngay tëb fecc boo manqué woon boo manqué woon ca ca dancing ba fecc boo manqué woon ca sabar ba fecc bu bees bu génn yow yaa ngi koy xaar foofu bu ñëwee nga profitoo def ko nit ñi dañuy mujj sax yow gàcce la ñuy am dañuy mujj ree moom moo tax yenn jotaay yi sax ñenn ñi ñimeetuñ cee toog kon nag mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ñun ñëpp ci bokk yam l'islam bi nak kenn momuko ba bu wax joté duñu wax deug légui nak fi kenn nangutu la wax deug wax deug ba paré nangu deug na ngeen nangu deug aduna bi kenn momuko nañu wax l'islam bi ndax suñu borom néna jeunesse bi moy defar ëlëk té nit ñi xalé yi dañ leena wara wax ñu deug sari'u ila min rabbikum leen ci lu baax doomu adama day ne ci lu baax heure buñu ci benen bi ci de heure julli jotté julli leen waaw mais conférence boo mënti doon at ku mënti doon mais heure julli jot ñu ne nit ñee baree tax ah nit ñi moo tax ñu ne bu kenn jug ndax nit ñi bu ñu jugee bu ñu demee mais mais ana yàlla ana yàlla te li war ci boppam bu yàlla duggee foofu rek bu heure julli jotee ndont ñëpp dem yàlla des fa moo gën mais léegi kenn gisatul xale yi nag na ngeen am fulla am fayda xool ñi ngeen di àndal gis nga tarixa cheikh sax nee na bala nga cee dugg yaay tànn ki la neex sëriñ bi boo waxee ne ko kaay yow ma jox la tarixa bi ñu ne la kon sax wérul ndax moom warula la koo jox ndax yaa war a jël sa yow sa consentement ñëw jël ko nit ku baax day xam lu baax mu ne ca ñun nag duñ leen nëbb dëgg parce que fii kër Alaaji Ahmad Baro dëgg la ñu xam moo tax dugguñ ci détail de yenn yi gars yi def duñ ci dugg li gars yi mën mën nañ ko li gars yi di wax wax nañ ko waaye ñun li ñu war mooy def lu baax wax lu baax ci la ñu ne. waaw euh, sëriñ bi dañoo gis ci euh, actualité bi. jeunesse bi daanaka seen quatre vingt temps seen quatre-vingts pour cent wu temps lépp ñu ngi koy passé ci réseau sociaux yi ñu mën cee cité lu mel ni Facebook ak WhatsApp ñu gis message yi nga xam ne moom la ci moom lañ ciy véhiculer yéeme na trop dem nañ ci ba ki nga xam ne sax moo waral coow li muy ci ci weer bi mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko ci wax sa ay kàddu yu xaw a tegginewul léegi nag loolu jeunesse bi dañoo réer wala ña ñuy topp ñoo xamul di leen réeral donc bëgg nañ daal euh, jeunesse bi ñu conscientiser leen par rapport ak l'utilisation des réseaux sociaux nan lañ ko war a jëfandikoo ak ki nga xam ni tey jii nit ñaa ngi koy jël di ko di jël seen sëriñ di ko teg ci kaw ci seet ci kaw muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam je pense que ni kon war na nag ngeen waxaat ak jeunesse boobu pour dimbali leen. waaw foofu d'abord réseaux sociaux moo xam Facebook moo xam. whatsapp bu mu mënti doon tabaarakallaahu dañuy delluwaat ci mbind mi dama la wax sànq ne la àlliyun nee na wa dëhru fii taxayyaru wa taqallabu nee na jamono day wëlbatiku te day soppeeku te bu ñu wëlbatiku yow jullit bi mooy da ngaa war a ànd ak moom soppeeku wëlbatiku daanaa waxtaan ci facebook yi fan yi rek lañ am tuuti kii arrêté wuñu ko dama lay wax lu garaaw dama lay wax ne la bu yonent bi doon dund semaine bu ne dana dugg Facebook wax ak nit ñi dana joxe leçon laa la wax dana dugg ci Facebook moom Seydina Mohamed laa la wax ci xam nga lu tax ndax daa am positif am négatif te nag lu positif ne yonent bi saa salaam dana fa taxaw wax lu négatif ne yonent bi dana fa taxaw wax pour gars yi bañ ko utiliser positif bi mooy lan daa am ñu war a jug ci jeunesse bi comme suñu genre yi comme ñeneen ñi koy def ñu jël ci Facebook di wax ci wàllu diine. wax ci wàllu julli wax ci wàllu tariqa wax ci wàllu sharia wax ci wàllu lislaam ba nit ñi mën a xam li ñu nekk lu mu doon parce que daa am ñu koy utiliser ñoo xam ni tey jii xamuñu mais bu ñu duggee ba utiliser la benn yoon fa la ñuy jaaree ba yeewu am na ñoo xam ne tey jii ci la ñuy jàng ba fer te ñëwuñu fi bitim réew la maa leen di jàngal am na ñeneen ñoo xamante ne tey jii musuñoo toog am temps ndax bu njëkk ba dañ daan seetaan yeneen mais imma gis nañu la ngay mbokk ngay xarit ngay wóllëre ci saa si tabaarakallaahu ñoom seen bopp en personne ñu ñëw dugg ci biir jariñoo ci léegi nag négatif bi mooy lan ñoom ñi ko créé ñoom tubaab yi ni ko ni ko ni ko julli di jëfandikoo ci ñenn ñi xamul tubaab yi ko créé sax defuñu ko ndax ñu ngi koy créé négativement ba tax na ñuy wax yonent bi loo xam ne waruñu koo wax pour ma xamal la doomu aadama ci boppam lan moo ko war ci digganteem ak lu ñëw xoolal ñu koy utiliser xale yi léegi duñ ko utiliser d' abord lu ne yow yaa ngi ñëw ne yaa ngi ci weeru yonent sa saa salaam d' abord li nga sol baaxul présentableul ci lislaam nga nekkat kat yow yaa ngi ñëw pour ndokkeel ñëpp li nga sol yow jigéen baaxul sol nga lu la neex loo xamante ni tey lislaam reconnaîtrewul sax sa vidéo bi te nag jigéen li ñu wax maa addal waji wal ka fay ni benn ñaareel ba ci boppam tabaarakallaahu xale yi mu ñu ko utiliser baaxul ndax foto yi ñu ci photo xamoo ni lu ci dugg lu ci dugg sëriñ bi dootul deñeti ndax daa am feneen fu ñu koy yóbbu fu ñu feneen fu mu dem feneen fu mu dem mu egg feneen loolu yëpp loo effacé effacé tey am na benn ordinateur bu ko indi woon yow noo mus a def ak koo mus a wax da ciy ne. kon ñu méfie wu ci loolu bu baax a baax a baax xool ni ñuy def ndax doomu aadama ci boppam daa war a xam ni muy doxalee diggante ba réseau sociaux yi képp koo xamante ne nag yiw nga ci bëgg yiw a ngi ndax am na foo xam ne boo fa jaaree yàlla defal la yiw am na loo xamante ni nag c'est anormal ndax bu ñu demee bay wax yonent bi jaare ko ci réseaux sociaux parce que ñun ci boppam ñun li ñu war ñoo ko deful kon jullit yi rawatina xale yi nañu moytu lépp luy Facebook jëm ci loo xamante ni neexul yàlla li la war mooy luy yiw nekk ca lépp loo xamante ni day wane sa yaram attention yaa ngi koy def warul de ndax mën naa dugg ci keneen yow yaa ngi koy def di wax sa diggante moom vocal dañul de ndax boo ko defee te ëllëg lu jëru sóoraale ndax bari na toog tey jox koo xamante ni ay way juróom ñi meetu ñoo wax parce que ñoom bañ ca nekkee dañoo nekkoon di fo ba génn ci luñ ca war a génne ba tey boo demee ci benn site boo xamante ni c'était en 1960 ba léegi ay images yooyu ñun ñoo ngi koy seetaan ci. Euh, sëriñ bi xam naa li ñuy tëjee rek mooy xalaa joxaat la kàddu gi rek nga conseiller jeunesse bi ci taxawaay bi ñu war a taxaw ci euh, weeru sell wi ak ban yan matukaay la jeunesse bi war a jël pour mën a mucc ci li nga xam ne tey jii euh, moo xew ci sunu réew mi. waaw réew mi moom. li ci xew day na waar yéeme na lool surtout xale yi parce que léegi scandale dafa amatul 18 ans jëm kaw léegi dafa commencé ci ci xale yi jeunesse bi koo ci gis ndax léegi yi ñuy lekk ak yi ñuy sol yi ñuy sol danaa la wax lu garaaw te danaa ko wax te danaa ko waxaat incha allah maa ngi lay xamal poser la question diggante xar ak bëy digënté xar ma waxat nga dégg ak bëy digënté xar ak bëy ñaar ñoñu kan mo gëna say say, xam kan mo gëna say say bëy bëy boko ko at bu délu suwaté mu utal la xam nga lutax parce que da am lu muy wone lo xamni dañ ko wëra ndax bëy ki da gatt ta da koy kon awram day génn nga koy gis xar awraam du génn ndax génn gi daa gudd léegi nag xale yi feek ñoo ngi sol yu ñu warta sol xale yi feek ñoo ngi sol loo xam ne waruñu koo sol di dem fu ñu warta dem yàlla da leen di nattu lay am am ndax dégg nga fi mu waxee bu baax moo tax dama naan la xale yi léegi ñoo ngi sol solu bëy te ko sol solu bëy nag ah ñu waree la waru bëy kon li am ci jamono ji mooy xale yi ñu conscientiser wu bu baax a baax a baax xam ni li ñuy sol mooy moo waral agression yi am moo waral mooy yàlla gi am moo waral lépp ndax boo muuree sa yaram xelu nit ñi parce que daa am góor ñoo xam ne dañoo feebar ñoom bu ñu gisee pooj dañuy feebar am ñoo ne bu ñu gisee conc daanoo nañu jalal nañ fukki at ñu topp la ngir jot ci yow fay la xaalis baa ñu ut ku ñu fay pour ñëw ba jot ci yow te loolu li koy waral mooy habillement bi ndax xale yi léegi li ñuy lekk dañuy gaaw màgg da ngay gis ko am 10 ans mel ni ko am 15 ans 20 ans kon loolu la ngay sol boo ko solee tabaarakallaahu da ngay excité wu ci yow ku góor ndax da ngay yàkkamti par pour moom ba ànd ak moom moo moo waral cas viol yi lii am kon xale yi li leen war mooy la ñuy sol nañ ko xoolaat bu baax beneen bi ci des nag guddi Seydina Muhammad ndax kat bis la boo xam ni def lu baax la. waaye attention boo ci defee lu bon ni mu réyee ba ni nga mën a amee def lu baax noonu ngay amee lu bon bàkkaar bu réy réy kon lan moo la war bu bis baa message bi ngay jàllale mooy ban mooy na nga bàyyi xel na nga bàyyi xel ba juddu yonent bi bu commencé les 10 jours mais sa nga ne dinaa def astaghfirullah lim sàngam junni jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bu ne mu doon sa maanaam sa tarbiya sa entraînement ci moom nga ne laa ilaha illallah léegi dinaa ko def bis bu ne mille am na ñoo xamante ni douze mille la ñuy def am na ñoo xamante ni yàlla tif dinañ def nangam junni wala mille cent onze ñu def ko ci dix jours yi def laa ilaha illallah def astaghfirullah julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox euh, wax ni yonent bi sa alayhi wa sallam sax nee na juddi yonent bi fu ñu toogee nga jël ndox teg ko fa ndox teg ko fa bu naan jotee nga tibb ca ndox ma naan mu ne day nooyal sa xol day tax yow bu ñu tudd yàlla sa xol sedd moo tax mag ñi bu njëkk ba ci biir xew ci gàmm wala tagg yonent bi dañ daan jël siwo wala paan teg fa def ci ndox boo paree ku bëgg naan na ñëwal naan fekk yow secret bi ci ne boo demee ci ni'matul kubra da nga ko ca fekk imaam Shafii wax na ko imaam maaruful kar yi wax na ko nga ne boo ko naanee yàlla day def sa xol day leer yàlla da ciy def yow kon nag mbokk yi bis boobu bisu jaamu yàlla la bisu def lu baax la bisu jéggalu la ba pare bisu muñ la luñ la mën a def muñal jéggaleel ndax bisu mbegte la ndax keroog bi yonent bi juddoo rabu àll yi sax dañoo bégu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek la nga waroon def sa morom defoo ko moo xam ci biir géej la moo xam ci jéeri ji la kenn deful lu dul yiw moo tax bis boobu lu la waaye def baal ko yow it noo mën a defee teraanga bu ko xeeb ndax yiw boobu loo ci def sa alal ji ngay jël def ko ci nee nañ yiw la kon ñoo ngi ñaan ci yàlla jeunesse bi gën a góor góorgóorlu ci jàmm yàlla gën koo fonk nag bañ koo yemaleeg lenn amul lu gën a rëy nag guddi yonent bi amul lu gën a màgg laa la wax ci àdduna guddig yonent bi moo tax Serigne Touba daana wax ni man amul lu ma gën a réyal guddi yonent bi amul lu ma gën a réyal weeru koor rawatina guddig laylatu xadri ndax bokk na ci samay mbégte taazimuhu li sunnati yaquudunaa lil jannati kon nag mbëgtee ngi noonu bisa ngi noonu Seyda Jimaal ngi nee na wa amun suma shahrun suma yowmun atafil huda qarnul quruni sururun fii sururun fii sururin wa iidun duuna ayaanil uyuni kon ku nekk ci ñun na ko màggal na bàyyi xel bis bi def ko bisu màggal bisu yiw bisu gën a jël sa kurus gën a jéggalu say bàkkaar gisu tabaarakallaahu dox mbokk wax lu baax def lu baax looloo tax mag ñi def ko loolu daal ku ko ci def ci jeunesse bi yàlla dina la def yiw ndax l'avenir dans un pays c'est la jeunesse sëriñ bi tabaarakallaahu loolu moo ci doon kàddu yi. waaw euh, jërëjëf sëriñ bi waxtaan bi macha allah rafet na te yaakaar naa ne mbokk yi dégg nañ ko bu baax euh, fi ñu terminé rek. moy xana nga joxe sa invitation parce que yàlla def na ni comme euh neuvième jour burdu bi yow ya ko wara waxtane muy aljuma insha allah nga yëgal mbok yi waxtaan bi ñu joxaat len rendez-vous le vendredi insha allah juroom ñentelu fanu burdu bi nga wax mbok yi aussi ci ban tem nga fasiyene waxtane wa wa tabarakallah wa waaw comme ni ko waxe rek fukki fan yi ñuy joxe ci kër gi yàlla dafa def ñun ñoy waxtane 9e jour wala 9e nuit du prophète ñu ci waxtane la femme est dans l'islam avec euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam yi jigen ni mu mel ndax so gisee rek boros na la ci touti tabarakallah, ci jigen, ci solom ak ni mo war a dal loolu solo bis bi nak di di ko ñepp nak inshallah ñu ñu tew nyu, ci teel a ñëw incha ndax ku teelu te ñew do am place ci kàttanu yalla ñu defé ci ci pencu kër mam aladi tabaarakallaahu di wax ne na ñëpp teel a ñëw ci kàttanu yàlla incha allahu taala ah, bis bi nag ah, bisu ñëpp la nag ndax bisu yonent bi sallallahu alayhi ñun amuñu lu bëgguñu ku dul yonent bi sopp ñu ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah di ko jagleel nag tabaarakallaahu ñaari famille la famille alhaji Babacar Seck tabaarakallaahu ak alhaji Makhtar mbay tabaarakallaahu ak la famille couturière soxna Assou Kayta mi nekk Thiès ñoom daal lañ ko jagleel changé wuñu ko ñooñu lañ koy def bu ñu ci yokkul duñu ci wàññi ndax nit du fàtte ña ña la doon defal lu baax say maam daan ko liggéeyal yiw tabarakallah bokk yiw bi mooy këru nitu yàlla yooyu incha allahu ñoom la ñu koy bokkal ci guddi gi namm nañ ci nag ku am teraanga yiw jagleel nañ ci nag waa kër Cheikh Ibrahima Fall tabarakallahu ndax incha allahu danañ def benn exposé tabarakallahu teg ko noonu def fi benn exposé bu yem comme ni ko gars yi di defee rek waa Safina chaque année ci gàmm gi macha allahu beneen bi ci des it tabaarakallahu dinañ def ay e, bernde kafe waa kër Cheikh Ibrahima Fall tabaarakallahu danañ fi indi li ko dalee tàkkusaan jëm suuf ñu commencé joxe bernde kafe yi incha allah ak yu bari ay moom daal dana fa am incha allahu taala di woo ñëpp nag di woo rawatina waa diaspora bi ndax gàmm gi gàmm c'est international woo waa Thiès tabaarakallahu di woowe ah, membre waa Lac TV Lac Rose TV tabaarakallaahu ndax ñun ñoo ngi ceeg benn groupe macha allah gaa yu baax ci taxaw taxaw bu am solo yàlla yàlla mottali ki ne woon ci xarale gi nag di suñu xarit di suñu soppee moom it di liggéey bu liggéey bu am solo di Papa Ndiaye Lac Rouge tabaarakallaahu jóge ba ñàgg à Dakar di liggéey liggéey bu am solo euh, ñun ñu am collaboration mu sponsoriser ñu ba lépp lu ñuy def suñuy conférence moo xam biir Dakar rawatina ci weeru koor gi moom moo koy gérer macha allahu taala yooyu nag ñoo ngi lay gërëm euh, Haji Samba yow it tabaarakallahu téye international éducateur nga. Euh, ñëpp xam nañ la dem nga fu ne diggante France Espagne ci taxawaay bi ngay taxaw ak biir Sénégal yëpp ñëpp xam nañ la yàlla yàlla jàppale la yàlla doolu sutura ci yeneen jotaay namm nañ nag maak yow ñuy faral di def yi ndax diyo yu am solo la ndax génération bi seni il faut ñu waxtaan ak ñoom il faut ñu waxtaan ak ñoom na ñu xam ñi ñuy àndal nañu xam ñi ñuy topp ndax jamono ji léegi yàqu na waaw ku mu neex topp lu waay neex def waaw te du noonu xool leen ñi ngeen di àndal xool leen ki ngeen war a àndal ak fi ngeen war a àndale te am na ñoo xam ne boo leen dégloo di ngeen demaa tabaarakallaahu yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu suturab jaay Seydina Mohamed looloo doon kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaamaaleykum jërëjëf euh, Oustaz Seydi Babacar Ndiéguène macha allah waxtaan bi rafet na. kon nag jox na leen rendez-vous incha allah neuvième jour Burdu su ngeen ñëwee dina waxtaan ci jigéen ñuy euh, ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, actualiser débat bi jox conseil jigéenu léegi ñu xool seen taxawaay ak seen jëfin ndax méngoo naag jigéen ñi daan ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbokk yi bëgg gëm sopp topp roy ak liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci Lac Rose TV macha allah. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا